وعن وارث سرهما مولانا شيخ الإسلام سيدي الحاج إبراهيم نس يا همة برهام نس احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر وبعد جبر الكسر ما انجلين دي نيو دي تجيت الشيخ محمد اللمين يا كرنا ورنا اللمبو نيب سبوبا دي نيوغين ركسي سن درس بني سيقين الخمس بنك موي رحلة رحلة الحجازية الأولى tukkim cheikhul islam maulana alaaji ibrahima ñas mu njëkk ca mag tukkim baay mi nag moom xam nga ne boo nekkee di jàngale la baay wax ne ci la nekkoon mi ngi mel ne rek yow mi nga xam ne yaa dugg ak moom avion wàcc ci ëttëb yontu yàlla muhammad ba sallallahu alayhi wa sallam yow mi ma topp maa ngi ci trente sixième page 36 page ndem téere bi ma amee moom nga amee waxoon nañ nag cheikhul islam Mawlana Alaaji Ibrahim jógee na madinatul munawwar ñëw na moom cheikhul islam Alaaji Ibrahima radiyallahu anhu ñëwee na zilxijja ah, ci weeri zilxijja wi bisab ah, dimanche ñetti fan si zilxijja dégg nga ñëw ba fi mu war a sangoo mu sangu def làmbaayam dugg ci jumaa yi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw masjidu nabawi def ñaari rakkaay julli nuyu jàkka ji ziyaare ko tàggatoog moom loolu ba muy jógee madina la xew sax ba ñëwee nag ba zul xulayfa cheikh ibrahim daal julli ñaari rakkaa ngir xarmaal mu ne mu def astafurlaa ñetti yoon dégg nga dey mu daal di ine xaj daal di xarmaal def la bayka allahumma la dox ba cëg bi yëpp ba ñëw ba ci rabir fofu lañ fanaan ci suba sa ñu départ nak ba exi Jidda ba ci gi di jeex Cheikh Ibrahim mu ne te liñ exi Jidda yeb ña nga jëm makkatal mukarram walhamdulillahi awwalan wa akhiran mi ngi melni cheikhul islam Maulana Alaaji Ibrahim exi na Makka bay ñu ne ko barab yi nga jaar ak yi nga taxaw digënt Makka ak medina bëgg nañ ko xam mu ne wal mahattatu garage yi noppalikuwaay yi baynal madinatul munawwara wa makkatal mukarram diggante madina ak makka cheikhul islam maolana haaji ibrahim mu ne la garage yi nekk ci diggante makka ak madina xam nga bàyyi bàyyi moo rëy itte radiallahu anhu ñi lay wax ci seen mbiri aj yëpp bàyyi mu ne garage yi fukk lañu ak ñeent diggante makka ak madina fi ñu taxaw di noppalu te benn bu nekk def na it pour xam nu mu tudd takk ko pour man la ko waxal su ko defee yow mi fa demagut boo demee sax mën ngaa bañ a réer moo tax boo ko toppee rek yow aj nga te demagoo radiyallahu anhu ñu ne ko limal ñu gaaraas yi mu ne awaluha ba ci njëkk biiru aliyin mooy fa ñuy ooye biiru aliyi wa hiyata foofa zul xulayfa mooy barab ba ñuy wax zul xulayfa wa thaniya ñaareel ba alfarish noonu la gaaraas ba tudd وثالث نت ثالث نت المسيجيت نون لا غاراج بتدو والرابع نت الشافيه نون لا غاراج بتدو والخامس جروميل بابيار بني حسان نون لا غاراج بتدو والسادس جروم بنل بمستوره نون لا غاراج بتدو والسابع جروم نيار البرابغ موي في باي دافي تشانغاي مك سولو مك يوي والثامن جروم نيتل بتول نون لا تدو wa taasia juróom-ñeenteel ba zahbaan la wala achir fukkeel ba jidda la bàyyi cheikh ibrahim egg si bim départ jidda jëm makka wal haadiya achara fukkeel ba ak benn mooy ummu salama dégg nga wa thaniya achara fukkeeg ba buxra noonu la gaaras ba tudd wa thalitha achara dégg ko fukk ba nag mooy chumay sii wa rabia achara fukk fukkeelu gaaraas ba ak ñeent nag fekk yaa nga biir màkk mooy makkatal mukarram cheikh ibrahima ne radiallahu taala anhu ci gaaraas yi la ñu jaar radiallahu taala anhu cheikh ibrahima ne qultu ma ne man daal yi ma romb ak leer yi ma gis ak kiimaan yi ma gis ci waa ji fi boofoon la la bëgg a expliquer nga ne ko dékk naa la samay nopp lan nga wax yow alaaji ibrahima mu ne ara dama gis ne annama lhaadi naka aji ginde ji al amina kada kuñ óolu ki ilaahuna sunu borom bii muy yàlla xadit xafahu daf koo tuuf daf koo may maa loo xam ne faata romb na man dégg nga ko fikri suma xalaat yi wa yi ak sumay xaatir ndax man araahu dama koo gis xadis tawlaa mu méngoo alal mulki ca nguur ga qaa'iman di aji taxaw waaye wa awsaafuhu ay melokaanam nag min kulli batnin ci bépp baatin foofa lambatu daj ko wa zahirin ak lépp lu ñuy oxee zahir foofa lambatu daj ko mu mel ni foofu mën ngaa xalaat ne pays yàlla ba bu dee gouvernement yonentu bi sallallahu alayhi wa mooy président ba di premier ministre ba di euh, président assemblée national ba di mbooleem ministre yi ak député ya xaajalu ci kenn képp ko xam ne yaakaar nga ne am nga ci cër rek réer nga ci sa seyru dégg nga bàyyi ne fa taha maa ngi gëñ ne taaha fa taaha taaha mii wa rabbul bayti maa ngi gëñ ci borom néeg bi te mooy yàlla bàyyi na aynun jëmm la loolu amul werante ndax mooy zaatu <laughs> ak sëriñ bi lum mën a mën a làqatu boo demee si zaatu rek boo mënee lëñ bët da ko fa gis ndeysaan bàyyi ne wa innama yara naka da gis al ayna jëmm ja xëynan muy xëynu xëynu mooy ludut waaw xëynu mooy ludut loo xam ne ay lu amut la mu ne yow da gis jëmm ji muy loo xam ne amut xanaa loolu moom la ñuy oowee kon xijaabul azam xanaa loolu la ñuy oowee sirul butun kanaa loolu la ñuy ooyee kanzul masuun kanaa loolu la ñuy ooxee kanaa loolu la ñuy ah damay laajte rek ci dara nag parce que li nga jakarlo ñu ne la jakarlo nga mom ba paré ñu la amut lolu lolu yéme na dé ah lolu yéme na Cheikh Katim waxal way lolu yéme na Cheikh Farba ndaysan mune la raibun, nan xëynu la xaaibun lu faddu la ghayru hadir duut lu fi tew sa bay waxon na né buy ut jimmi yalla lool lamb daj ko rek yonantu bi sallallahu alayhi wasallam mune la ngi gën borom neeg bi re taaha ki may wax taaha man xam nga waxul Mouhamad Taha la ñuy wax jëmm la waaye da nga gis jëmm ji mu nekk xaynu mooy lu fi newul dégg nga ko te dafa fàddu teewut man fii jëru sax ma fi taxaw parce que man mënu ma fay leeral ba ki may leeralal dégg ndax ma ko xamut bàyyi ne tanawartuhu maa ko sakkoo leeral maa ko niit fi xaalatayhi si ñaari xaalaam ya ñaari xaalaam ya lan la dégg nga bu la neexee ne uluhiya ak nubuwa bu la nexé nel nubuwa ak wilaya ndax Cheikh Ibrahim bam lay limal de nga ko fële ci jawaayiru rasail bam nan yonentou neena yàlla anta abu ruhaniyati ibn jusmani de nga ka hadara de ñet rek la la fa limalon moy uluhiya nubuwa wilaya dana te te nee na te benn bu nekk dafay waxee ci làmmañu morom ka ben bu da fay feñu ci jëmi morom ka lolo tax man ma wax la lolo dégg nga mu a rabbul bay ah tanawartuhu tey xaalatayhi ci ñaari xaalaam ya te wassuman di aji mandargaal waaye falam yumkini jàppandiwut at tasrixu leeral gal bil mutazahiri ñeexal kuy uh, wëndeelu ci zahiri yetu ci lu feeñ maanaam kon ci kim mën a mooy ku nga xam ne yaa ngi bil bil bawaatini waaye bil mutazahiri du mën a leer ci may ñu jam bay ne war a kib naa ñu war min jidda tukkee jidda ila makkata jëm makka baadal isha gannaaw julli gahe alaxiir gada aji mujj naa ñu egg ila zituwan ca barab ba ñuy wax zituwan baada intisaafi leyl gannaaw bu guddi gi soree lool bay waaj a jeex wa bit naa fiyaa ñu fanaan fa ay fi jarul ca barab ba ñuy wax jarul fa lañ fanaan wa baada tuluwi shams gannaaw bu jant bi fenkee nag irtasal naa la ñu sangu ودخلنا مكة ندوغ مكة وطفنا بالبيت لنجك دف موي نيور كعبة وسعينا بين الصفا والمروة نيور ديغنت الصفا والمروة لي ييب نك لي في خيو باي دانا لاكو نيتالي لي ان شاء الله nga xamne baye du chaxan jere jeffe cheikhul islam baye رضي الله عنه بين والمروة بين الصفا والمروة بين وذلك لول يوم الثلاثاء بسب ثلاثة لقيون بسب ثلاثة جو تيكو بعد أنا لك وخ كنم bay na wa min xusnil ittifaaqi ci rafet ak dëppoo gi ñu yàlla may ci sunu ak gi ne annal bayta naka néeg bi di kaaba gi wajat naahu fekk nañ ko maftuuxan muy lu ñu ubbi watuf naa ñu wër jamian ñun ñëpp nax nu ñun wa sultaanu kënu ak buuri kënu wa ak mbooloo xam mi mu àndaloon nag mu ñu jiitu rajulun ak góor ismu turam alxasan xasanul mutawif mooy alxasan al mu mutawif noonu noonu lañ koy ooyee xasanul mutawif moom mooy ki nga xam ne moo ñu jiite woon dégg nga ko ñu topp ci kawam Cheikh Ibrahim ne wa baqay naa ñu des bila mutawifin ci lu duut ku ñu ku ñuy wëral maanaam kooku ñëw na muy xasan moom nga xam ne mu tawif la mooy wërloo gaañi nga ñëw muy ànd ak yow di la kii mu ne ñu dem ba yàgg nag mu mel ne xasan génn na ci ñun ñun ñu ngay defal suñu bopp ndax foofa dem am ku nekk ci sa kanam di def ngay def tekkiwut ne danga nga loo war a def waaye noonu la ko fa gars yi di defee bilaa mu tawif bàyyi ne wala alhamdulilah sant ñeel na yàlla wala huuta ñeexal na ko it alminnatu xéewal yi fi wàcc moom mooy boromam radi euh, euh, subhaanahu wa taala mu ne wa askanana allahu daal di ñu dëkkalal yàlla nag yàlla moo ñu dalal moo ñu dëkkal fañ dëkk de xaysu foofu xam ne innaa ñun day faw ay ganam lañ ñun ay gan yàlla lañ yàllaa ñu welcome yàlla moo ñu laa <laughs> ilaha illallah bàyyi nu ñun kenn dalalut ñu yàlla moo ñu dalal ñun kenn dalalut ñu yàlla moo ñu dalal wa askanana allahu xaysu innaa dayfahu bi baytin ci néeg boo xam ne mujaawirin li baytillah dafa dëkkoo kaabaak yàlla gi néegab yàlla bi boo xam ne dafa jàkkaarloo néeg bi direct li baytillahi alxaram nakunu fiihi ñu nekk foofu ci néeg boobu wa nanzuru ilal bayti ñuy man di xool néeg ba dañuy jàkkaarloog moom bu nekkee suñu néeg bàyyi ne walhamdulillahi sant ñeel na yàlla wa kuntu nekkoon naa sax aqulu di wax ba ma nekkee foofu naan اللهم إني نويت أن أتقرب إليك بالنظر إلى بيتك الحرام بالنية التي كان ينظر بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا برم تولي سليك ملا يرفدي إني من نويت إننا أن أتقرب إليك ما جاين لولا بالنظر تقول إلى بيتك الحرام سنك بني حرمال بي بالنية التي تشيني بنا قمنا كان نكون ينظر دان قول بها تشوم النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم لي رباي نان نيو إن شاء الله xam nga wax nañ ne serigne bi daana wax ne sooy dem fu melni Kaaba ga wala fa Cheikh Tidiane fi la taxajuk muy zaawiye ba muy Kaaba ga muy darixa yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bu ko sa beut ne jàkk faxel balaa sa be tege ko ci xoolin gu ñeuk gi waxal saajo yëpp yàlla daf koy garantie ci saasa bayna na wa fii yawmil arbia ci bisub àllarba nak talaqaytu lañ ma dajale bi habibi ci sama soppe ba al waliyu saalix waliyu bu baax ba wa nuurul waadix ak leer gu bër ga chériful munif chérif bu tedd ba sayidi ahmadu tabara ahmad tabara ahmad tabara lañ ma dajaleeg wa farixtu bihi mu bég ci moom lool faraxahu comme mbégteem bii ci man ma bég ci moom comme mbégteem ci man wa qaala lii mu ne ma maa maanaahu lan mooy maanaay alam taktub lu tax bindaloo ru'yan ak gént ra'aytuha goog gis naa ko bi ka ci yow xable avant maanaam bi foo njëkk may daj ak yow fii baa ko luy gént gi mu ne waxiye ta moom mooy inni naka man ahmad tabara ra'aytu ko gis naa lay walaaji ibrahim te walla jamii al masharib nga méngoo mboolem naanu waayi ci yàlla kenn du naan ci yàlla tey la cheikhu tidiane waxoon laa yushrabu waliyun wala yusqa illa min bahrina min ladun aadama ila nafxi fi suur mu inni raaytuka tatawalla jami al masharib maa la gis yaa mingoo mbooleem mbooleem dégg nga ko naanu xanaa loolu mooy la ko waaji waxoon dégg nga ko mukarraran anna nin marzuq dégg ko mu ne ma yow lañ wërsëgal te mu ngi koy baa mu naan ma yaay ku wërsëgal mu ne wa maanaaha maanaay wax joju moy lan innaka naka yow muxiitun bil bil masharibi yaay ki lém yaay ki pek mbollem nan way ko nandul du nan bayna wa futihatil ka'batu ni ubi ka'ba ga wazdahamat wazdahamtu marik rilo ma an ànd ak nit ñi aka am itte aka am itte bay ak num toll li nak dang ci am lo dege dana am luma la ci wax legi li ni buma ma digi bi rek mune ne ma ak nit ñi pour dugg ci biir kaaba gi bàyyi du toog naan man la diw sàngam wala lii ak laa donte moom mooy ki tax kaaba gi xërëm yu jugee fa moom mooy ki tax ñu sellal kaaba gi moom mooy ki tax moom mooy ki tax demet dégg nga mu ne defuma loolu de tooguma tag Cheikh Ibrahim kum dajeel da nga ko may mu jàll mu ma rëj rëjloo ak nit ñi mu ne waqaala lii daal di ma wax a cheikhu sëriñ ba xaajibul kaabati kii garde kaaba ga ñu ne ko bàyyi ko nu mu tudd nu mu tudd mu ne Abdullahi Chiibi kooku Abdoulaye Chibi la tudd kooku mi ngi door di gis baay de waaye xoolal kiimaan li xew dafa gis bàyyi rek ne ko maalaka lam tuallima nii lu moloog yow lu tax xamaloo ma dégg nga ko ne da ngaa bëgg dugg ci kaaba gi xam nga loolu rek la ko wax lu moloog yow lu tax xamaloo ma lu tax xamaloo ma googu la moo nekk ci biir ne da ngaa bëgg a dugg ci kaaba gi aftaxu laka ma ubbil la ko fii waqtin ci waxtu woo xam ne maa fii axat kenn nekku fi yow de mënoon nga maa wax ne ma da ngaa bëgg a dugg ci kaaba gi rek mu ubbil ko ci time boo xam ne kenn du fi ne yow rek yaa fi nekk lii jàngatal taarix ndax keneen man mas na ko am ci kaaba gi dégg nga ko kenn du fi nekk illa ant lu dul yow wa man tuxib ak ko bëgg mu ne fi bàyyi mu ne bi mu ko waxee oustaz Baram mi ñu ko doon firil ne bàyyi tontu ko ne ko tey laa ko gën a aajowoo mu ne bàyyi ko tontu loolu bàyyi ne wa fataxa mu ubbil ñu kaaba gi laylat alxamis guddig alxames baada naw min naas gannaaw boo xam ne nit ñëpp nelaw nañ nag ana man Ibrahim Niass wa muridi ak suma taalibe sultaanu kanu buri kanu wa qawmun min xaasatihi ak aw nit ci ay xaasam wajat naa ñu am waxtan aw waxtu woo xam ne laa yubaaxu bi dinaarin wala dirham kenn mënu ko jaay wala nga koy jënd ci ay dinaari ki dërëm Cheikh Ibrahim ne alhamdulillahi taala sant ñeel na yàlla mu kaw mi lool bàyyi ne wa taxaqaq naa ñu am kóolute gu dëggu aw wafara ci tuuf maanaam ci jot bi kulli matalabin ci bépp càkkutéef ñu ne ko bàyyi lu la tax a am kóolute ci ne càkkutéef yëpp jot nga ci mu ne wa fii tilka saati ci jamono jooju ci waxtu woowu nazalal mataru taw bi dafa wàcc yow mii may waxat bàyyi ci xel ci gàmmuwaat ak Medina Baye na rek la taw wàcc yàllaa ngi wan àdduna yëpp ne leen Baye Niass dëkkam rek moo gàmmu parce que ñoom ñoo xam yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga ko nazala al matar alayna taxtal baabi ci buntu kaaba gi bu ma génne du foofu kese moo taw de wa taxta misabi rahmati ak ci ron baarab bi ñuy wax misabu rahma bàyyi na alhamdulillahi sant ñi yàlla yàlla yàlla may na ko cheikhul islam alaaji ibrahima bàyyi na loolu guddi alxames la taw xew waye wa fi yawmil xamiis ci bisab alxames bi ataani dikkal na ma asharifu sharif ba almunif bada aji bax wal allaamatu borom xam-xam ba alxatriif bada aji yaatu lol xam-xam man ko xamne la shakku duma sik mukk fi wilayati ci wilayam wa salahihi ak mbaxam mbaaxam kookan la ali aliyinul kutubi sayidi ali kutubi ko nak ko am ay tarikh la ak cheikh ibrahim ñas radiallahu anhu ak li muy for yëpp ak li muy bëri bëri xam yëpp bi mu ñëwee ci bàyyi lu xew bàyyi na wa talaba dafa sàkku min ci man te ma maa indahu yeesal lépp lu nekk ci moom min a tariqati ci tariqa bii wa qultu lahu bi ma sàkkoo lool ci man ma wax ko man alaaji ibrahim ne ko ilaa waqtil isha demal ba ca waxtu gaye maanaa ba guddi demal ba guddi ñëw cheikh ibrahim mu demee ba guddi mu ñëw def naa la mu ko digoon waa taytuhu jox naa ko a tariqata tariqa jaan bi ci sama wasita wa qaddamtuhu jiital naa ko may naa ko ijaza bi kulli ma indi ci lépp lu nekkoon ci man min al ijazaati ci ay ijazat wa arju maa nga yaakaar min allahi lu tukkee fa yàlla an yansura mu dimbalee bihi ci waa ji a tariqata tariqa tijaan bi ndax waa ji kuy borom xam-xam la xaqaqa allahu yal na dëggal yàlla rajaana alil kutubi mii ba fii jami al ahbaabi ak ci mboolem soppe yi nga gis nag Mawlaana Cheikh Ibrahima li nga xam ne loolu la ko yàlla may ca xoolal bàyyi ñi muy dajeel rek radiyallahu moo tax kuy mum mas a rek ponkal mum mas a dajeel xoolal naar yi nga xam ne ñoo gën a yab Cheikh Seydi Ahmad Tidiane ponkal yi la bàyyi di seppi di leen samp ñuy nekk ay muqaddami Tidiane bàyyi na waa xam naa ñu daal di sax yowmul jumaa bisab àjjuma wa huwa tamoom yowmu tarwiya bisub tarwiya la xataa sallayna aljumaa bañ julli ajjuma bil xarami ca hurumba wa tuf naa ñu wër kaaba ga beneen yoon wa dahab ñu dem ila minan jëm ca minan wa bit ñu fanaan minan laylata arafa guddig arafa al ula da aji njëkk arafa gu njëkk ga foofu lañ fanaan wala ma talaat shamsu ba jant ba fenkee rek ala subayrin dégg nga ci dégg ko ci subayr rek dahab naa ila arafa ñun la dem arafa daxwata yowma sabti ci yor yoro bisab samedi wa nazalna bañ demee a ñu wàcce ànd masjidi ibrahima alxalil alayhi salaam ci barab ba nga xam ne moom la ñuy wax jàkkay ibrahima xalil ji alayhi salaam al musamma bi namira barab ba nga xam ne ñu ko tuddee tey boo demee namira waaye nag jàkkaay seydina ibrahima la alayhi salaam mu ne wa darab naa ñu samp foofa xaymatana sunu xayma ya wala ma daalati shams bi jant bi jéngee rek ixtasal naa la ñu sangu baa ngi lay jàngal de xaslan càngaay bilaa dalkin ci lu amul bomb kon lam la fa mën a jàngal mooy foofa càngaay lu amul bomb lay doon aw bi dalkin dayifin wala bomb bu oyof dangay bomb bomb bu oyof foofa duut càngaay loo xam ne génnee tilima la tax di sanguwaay càngaay limtu la waaw daanaa wax ma ne dégg nga macha allah jàpp du càngaay dégg nga jàpp du càngaay du ne dañ laa wax nga jël njàmpe di di xoos kon lu waral njàpp loolu noonu dégg ko kep kuy dox wal nga ci bu baakha a baax mu wa dahab ñu dem wa sallayna ñu julli ma al imam andak imam ba ba dhuhrayn ñaari tisbar ya ken do wax al asrayn waye man nga wax dhuhrayn ken do wax maghribayn waye man nga wax ishaayn dégg nga mu qasran ci gatal dégg nga ko jamaan ak boole dañu gatal julli gi dañ ko wañi ba pare dañ ko boole dañu wañi julli gi yaani waye dañ ko boole dégg nga parce que loolu moo fay sunna wa rux naa ñu boy ila mahallina ci sunu place fa ñu samp sunu xayma wa akal naa ñu lekk bañ pare wa machay naa ñu dox ila jabali rahma jëm fa ñuy wax jabalu rahma mawqifu nabi sallallahu alayhi sallam bàyyi rey itte fa yonantu bi sallallahu alayhi sallam taxawoon foofa la dem taxawi bàyyi ne fi arafa ci arafa fa yonantu taxawoon foofa laa dem taxawi wa in kaana donte arafa kulluha place bi ñoo arafa yëpp mawqifan taxawukaay la waaye man fa ma tànn mooy fa yonantu bi taxawoon sallallahu alayhi wa sallam parce que yaay représentant yonantu bi loolu dafa leer bàyyi na waqaf naa ñu daal di taxaw lillahi alhamdu sant ñaan la yàlla dégg nga ko ala arjulina ci sunuy tànk dañoo taxaw tooguñ tëdduñ suhoonuhuñ dañoo taxaw baadama rakibtu gannaaw bu ma waree jamalan gëlëm limtisaali sunna ngir roy sunna si yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam est ce que xam ne Baye saa yu demaan Faas bu Cheikh Tidiane bala mu faa dana dana wara bax la dana wara mbaam li tax mu diko def mu ne bayam alaaji abdullah bi mu demee fas fofu nonu dañ ko won mbaam mu war ko bay sa yu demane fas dana fa war mbaam waye gis ngey sa yu ñewé makka fi ku ta arafa dina fi war gelem ngir roy yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi de amarna ñu dundal nag wuquufanaa sunu taxway ba fofu bi du'a ci ay ñaan wa tadarroyi ak torokh torokh lu wa dikrillaahi ak tudd yàlla taala mu kaw mi xatta shams ba bi sokh wala ma taxaqaq naa ba ñu dëggalee am kuulute alxurub ne jant bi sona nazal naa la ñu wàcc ilaa xabaa ina ci sunuy féexlukaay maanaam ci sunu xayma jële bëgg a wax moo tax mu ne ilaa xabaa ina wa min alaamati istijaabati duaayina ci mandargaam nanguy ñaan gi nga xam ne yàlla nangu na ko sun ñaani wa qadaai jamii xawaijina ak fajuk mboolem sunu xaaja yi anna naka ñun ca saasa mamadat na tàllalu ñu ay diyenaa ci ñuy loxo li duwaa yi ngir ñaan illa nazala al mataru lu dut ne taw bi taw na lu dut ne taw bi taw na lu dut ne taw bi taw na sama gars yi déglu leen bàyyi nee na dafa tàllal loxo mi ñaan rek taw bi taw allahu akbar cheikhul islam allahu akbar bàyyi ne wa hada lii waqaa tabbina lil ubaydi al xaqiri ind al bayt ngir jaam xam nga moom moom moom moo ñemee wax moom ne jaam bu xeeb bi waaye ñun jaam bu màgg bi la ñuy wax lii yàlla ko xewalal ci jaam bu màgg bi indal bayt ci néeg ba bi mu duggee ci kaaba ga xam nga waxoon na la ne yàlla ji taw na fa waaye xew na ci moom it inda arafa wa inda arafa ak ci arafa wa inda minan ak ci minan wa xayru zalika ak yudut yii mimma ci loo xam ne laa abuhu bii du ma ko tudd mukk dégg nga yëpp saa yu tàllalee loxoom rek bu paree yàlla ji taw dégg mubidunang ko mu bind nak ne qala sha'ir way kat bi waxoon na ne wa maa katam li ñu nëbbu mimma ci li nga xamne la abuhu bi duñ ko fulandi fulandi ma kunna la ñu nek di ñu ko bind di bind kon bay nee na li mu nëbbu mu ëpp ay million ngi no yoon lo xamne bind kon nak lolu rek lu nit meuna deg la nañ am fi tay ci su bi ñaan yalla may ñu deg ak top li ci rek xam le nek ko doon amut xam-xam way lu ci leer baay mi waxee ci làmmañ yi jiitu ci nopp yi di dégg la in uridu illa al islaaha mastataatu ma tawfiqi illa billah seen mbokk Ahmad Dame Niang la Sénégal bi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu